ñuy fàttali rek ni vote bi euh, selon la loi huit heures la bureau yi di ubbi di tëj dix huit heures nit ñi nañu teel a ñëw teel a voté bu ñu xaar ba ngoon ñuy soog a ñëw mën nañ ci am mbetteel parce que mën nañ ñëw fekk bureau de vote yi tëj donc dix huit heures dafa gaaw jant baa boobu dix huit heures da ngay gis jant bi nekk ci kaw bul xool jant bi del xool sa montre teel a ñëw teel a voté te loolu la ñu gis te lépp a ngi jaar yoon fi fi fi ma fi ma euh, nekk nii di bureau de vote bu Sangalkam yi école Sangalkam 1 ñu ñaan yàlla rek lépp aw ci yoon ci jàmm ak salaam ndax Sénégal lool la loolu la xam euh, suñu démocratie démocratie bu avancé la président Macky Sall mi ngi ciy liggéey lu am solo te loolu bu ñu continuer di ko def njariñ rek lay doon pour Sénégal euh, démocratie moom sax na fi lool lool lool te dara mënu koo delloo ginnaaw euh, disposition yu gouvernement bi jël war a jël yëpp jël na ko pour que élection yi jaar ci yoon dans la transparence la plus totale ñu ñaax nit ñi rek ñu gën a voté ci jàmm ak salaam constatons, ñu constaté mooy euh, affluence euh, li ci ëpp mooy le vote mais wax y a vote vote bi moom boo ñëwee da ngay voter rapidement dem donc nous avons toute rang ah, affluence mais ce li le euh, le système est très huilé Et loolu vraiment le président Macky Sall le gouvernement particulièrement le ministre de l'intérieur et l'administration les préfets, les préfets gouverneurs sous-préfets ñëpp taxaw les forces de défense et de sécurité ñi ngi fi aussi lepp ngi jaar yoon euh donc suñu xel Dal, euh, dal na ci déroulement bi nga xamni mom le scrutin bi di am fi ci Sangalkam